daal leen lim suñu Mountakha Mbacké di ko nuyu président de la République ba yabal mooy boole ci nuyoo bi Cheikh Ahmadou Badawi mi nga xam ne moom la sëriñ bi teg liggéey bi ci loxoom ci boole ci nuyoo bi ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci taxaw te comme université architecte yi ingénieur yi chef d'entreprise yi projet bi nga xam ne projet bu gëm mën a àgg askan bi jëriñu ci kon li ma gis tey daal na xel parce que projet bi mu ngi avancé te concept bi di gën a wane ne lu baax donc ci loolu lañ taxaw ci jàpp di ci bàyyi xel li ma gis nag bu ma demee dinaa defal président bi mu yónni pour naa ñëw saytu lan lañ ci war lan la ci war a gouvernement bi ñun am nañ ci gis-gis am mais tey bu ñu dégloo ñi nga xam ne ñoo yore projet bi bu ma dellee dinaa ko jégal président nga xam ne xam naa taxawaayam ak bëgg bëggam ak gëmam ci projet bi dina ci waxal ak xalif bi parce que man dañ maa ndaw laa rek di rafetlu ko la carte universitaire mooy simplement ñu beneen dispositif bi nga xam ne moom moom la ñu lal ci ci Sénégal jàngale jàngale te pour jàngale euh, jàngalekaay yu mag université yi te loolu vision la bu nga xam ne dafa ci tàggat ay réew mi sukkandikoo ci xam-xam la développé fii bërëb la bu def xam dinañ ko ci ci carte bi ñuy gérer ñun suñu bopp xool à chaque fois que de besoin lépp lu ñu ci war a taxaw loolu tamit moom naa fi asalaamaaleykum